raté seen émission bi di l'avant-première de la mi-journée ñu dellu soit mbokk yi ak xarit yi euh, war a am ak yéen waxtaan mu di waxtaanu yor-yor ah, tàmm nañ ko di ko ànd ak yéen euh, di leen bu baax a baax a baax a baax di ziar ah, nga xamante ni ñoo génn ci feetu bi di suñu mbokk chrétien yi feetu Pâques bi di espérer li ñu ñaan ci weeru carême bi yëpp yëpp yëpp suñu borom nangu ko ah, mu nekk beneen réewum Sénégal doyen Mamadou Sy Albert di la gërëm di la sant doyen gi ñu ngi sincèrement c'est vrai, il y a beaucoup d'événements. De, de les choses s'enchaînent comme pas possible. Oui, sexuelle en. vitesse kay grave oui. oui. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax di profiter aussi Seck le wax c'est à la fois un imam transporteur et des gens qui te suivent comme ça de, de, tous les jours ils disent que ils, euh, suivent euh, l'émission et ça quand même di leen di euh, delloo delloo njukkal di leen remercier parce que quand même le fait qu'ils accordent de l'importance à l'émission c'est une bonne chose et puis c'est réconfortant quand même kon ñu ngi ziar waa amoo yëpp six amoo waaw mais bàyyi ma boole ñeneen ñeneen <laughs> amoo six xaw ma sax ñaata amoo moo am. quatre am quatre amoo la. je crois ah, non six six non six six six. di ziar waa amoo kon. doyen nag euh, bëccëg bi man de doyen xiif laa yeewu xiif tey moom foofu dinaa ci trop. Ah, yeewu laa def xiif. très très tôt xaw ma qu'est-ce qui se li ma. moo consistant xaw xiif. non c'est la fin du ramadan. je sais da ngay sa li nga engagé woon ci kii ci ressource mooy épuisé wu. Euh, on perd on perd beaucoup beaucoup d'énergie beaucoup de bah, le sommeil aussi et puis. Euh, euh Ouais, ouais. Mais voilà, j'ai cru que le compte est fermé. Faye Déthié Faye dañuy nuyu moom moo di président pôle des non waaye léegi yëf yi dafa soppeeku il faut que mu wax ma nan la jógee ci non aligné jëm ci nu mu waxee sax naan kàddu respecté kàddu fonk sa kàddu waaw léegi il faut nga defal ma transition boobu ci nuyoo bi noo jógee ci pôle des non alignés bi la ñëpp xamee woon teere ci fonk sa kàddu fonk sa kàddu parti la wala du parti parce que pôle des non alignés kii la woon kuréel waaw euh, maa ngi maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci invitation bi di nuyu itam notre doyen euh, Mamadou Albert rafetlu seen euh, seen taxawaay bon di suivre régulièrement émi te ñu bëri di ko suivre aussi je crois muy indi une contribution de qualité ci éveil des consciences conservateur bon comme yeggaguñ ci moom ma ma yem foofu ba nga oh, présenté d'accord d'accord alors euh, ma bëggoon a wax rek ne euh, maa ngi rafetlu liggéeyu kër gi di féliciter ñëpp di jaajëfal ñëpp ci seen taxawaay en particulier euh, di ci jiital ki nga xam ne kii mooy njaatiki kër gi di may Maymouna Ndour Faye di vraiment rafetlu bu baax a baax engagement am ak détermination au service de ce pays-là Euh, léegi nag euh, en fait xam nga pôle de non alignés kuréel la boo xam ne dafa dajale ay parti politique yoo xam ne li tax ñu ko organiser ko mooy quand il y un dialogue politique nga xam ne dañuy wax ne parti politique yi dañoo bëri mënuñu bu dialogue amee ñu ne parti bu nekk na ñëw kon saal bu muy mën a doon boo sàgg ne duñ fa wala buñ fa xejee itam liggéey bi du mën a baax moo tax ñu xaaj parti politique yi ci Sénégal yëpp ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy ñi ñuy wax majorité maanaam maanaam ñi ànd ak nguur gi beneen xaaj bi mooy ñi nga xam ne mooy opposition beneen ñetteelu xaaj bi mooy ñi nga xam ne bokkuñu naam ci euh, majorité mais doxalin bi nga xam ne moom la ñuy doxale politique ci Sénégal am na lu bëree bëri d'un côté comme de l'autre loo xam ne xeeb nañ ko rafetluwuñ ko jàpp nañu ne ñoom dañoo war a am seen autonomie ba lépp lu ñëw bu ñuy xayma ñu xayma ko exclusivement en fonction des intérêts du Sénégal non pas en fonction d'une chapelle ou d'un leader ou d'autre chose donc moom mooy ce que ce que certains appellent communément la troisième voie loolu moom mooy kii euh, ci cadre boobu man laa demee ci pôle de non-alignés au nom de la convergence pour la démocratie et la république CDR fonk sa kàddu nga xam ne moom mooy parti Euh, li tax euh, peut-être ci présentation bi mën a woon nañu def loolu comme dañuy waxtaan te li ñuy waxtaan dama war lu may wax ma xam au nom de kii laa koy wax moo tax ma ne naa nañ préciser que je la là je suis membre et coordonnateur du pôle des non mais teew bi ma fi teew c'est à ma qualité de président de la CDR Fonk Sa Kàddu et euh, mënoon nañ ci yokk ne man par exemple ci élection yi jàll ci élection yi maa ngi ci coalition Aly Ngouille 2024 mais euh, booy dem ci jataay da ngay xam toujours ci jataay boobu ah quel titre ngay ngay wax au nom de qui. CDR mooy la. CDR convergence pour la démocratie et la république. CDR fonk sa kàddu waaw. mooy li gën a euh, tumuranke ci ci réew mi te ñu jàpp na xëy na ci fii ñu jëm xanaa nit ñi dinañ ci gën a góorgóor ba lu ñu waxati rek euh, jéem koo def. loolu plan doy ziar naa la grand bokk ci euh, communication pôle de communication bu parti réew mi réew mi bu Idrissa Seck grand Pape. waaw naka nga dafa koor gi tey moom dama laa gis xamee ma la xaw ma sama bët yee flou xaw ma yow la koor gi escanté. <laughs> non maa ngi maa ngi woor ni ñëpp. waaw alhamdulilah ñu ngi ñu ngi sant koor Ndakaar moom taxu koo. taxu koo jafe lool lool taxu koo metti di la ziar. di ziar grand. Mamadou Sy Albert Déthié di ko di ko ziar bi ma fiy mujj kër gi metti woon na. waaw waaw ah? bi ma fiy mujj c'était très compliqué. di ñaanal soxna Maymuna Ndour Faye yàlla gën ko dolli tan gën ko dolli wér masawu euh, li fi jaaroon yëpp mais soo fàttali ko bi may mujj fii émission midi première mais fii mujj maa ngi doon laaj la 2 lan mooy xew insisté naa ci le 2 avril lan mooy xew. waaw. ah nga fàttali. donc moo tax man damay damay sant yàlla sant yàlla bu baax euh, ci jeunes yi wala boog yàlla bëgg gi mu bëgg Sénégal. on est venu de très loin yàlla mayee tey ñu def <laughs> non non non c'est-à-dire li ñu dund bari na dëkk yu baskule ci sous-région bi dundu nañu xaaj bi te man yàlla moo ñu bëgg wala suñu génie la waaw baraka non c'est-à-dire que waaw moo tax ma ni nanu sant yàlla bu baax Sénégal ci bañ di fowe yenn yi dañuy dañuy bañ di fowe yenn yi parce que rëcc nañ ci kenn mun laa wax les artisans may wax bërki démb xale yi man leen xam ngeen umekoor pale umekoor kaso waree pale yàlla rek ko man Sénégal rek la xam <laughs> donc sant yàlla sant yàlla mais la classe politique sénégalaise toute obédience confondue nanu dem prise nanu am prise de conscience ci li xew Sénégal. d'accord d'accord waaye la classe politique toute obédience confondue félicitez-les félicitez-les rek suñu bopp rek. waaw xam nga. instant yi moom mun nañu ni game is over waaw xam nga dafa dafa ñëpp ci ñëpp ci am satisfaction. ci ñu nekk nit laa wax. parce que le dépérissement des parti politiques et des coalitions dafa jot Sénégal élection yi li mu njëkk a wane mooy loolu parti politique yi volonté populaire bi moo ko ëpp doole. Mhm. opinion bi moo ko ëpp doole. bari na parti politique yoo xamante ni dañuy rëy ci tur wala ki ko jiite am dayo ci tur volonté populaire bi moo ko ëpp doole. c'est c'est la volonté populaire qui a prévalu durant ces élections. li askan wi bëgg moo am. léegi lan mooy taxawaayu homme politique mooy taxawaayu coalition yu bari yi nga gis ñu XXL en fin de compte nu consacré wu rek ci la askan wi bëgg. bien sûr ah mais loolu sax mooy la. <laughs> mooy mooy ah, pouvoir. Hmm? c'est c'est la définition c'est la définition de la démocratie waaye. Hmm? homme yi xëy na mën nañu réer mais de tout temps ci peuple bi la mës di mujjee bañ non non non c'est-à-dire mën nañ leen koo xañ mais bés bu heure wote jotee heure wote jotee moom da ngay gis sénégalais bu ñu wotee ba ci ngoon da yaakaar ne dañ koo waxante en secret et ça ça n'a pas commencé aujourd'hui cest à diir ñun nag mën nañu comme l'autre a dit mën nañu en tant que leader nangam ak nangam yaakaar ne nous représentons ceci nous représentons mais le plus souvent dañuy coow ci mbedd yi di wax mais sénégalais yi dans le dans le écrasante majorité ñu ngi toog seen kër di xaar fekk ñoom xam nañu li ñuy def et ça ça n'a pas commencé aujourd'hui maa ngi fàttaliku en deux mille euh, deux mille euh, deux mille euh, deux mille quand bi bi bi président waa di di daal. deux mille douze deux mille douze bi waat gis nga résultat yi comme ni ñu ko jox premier signal au niveau de la diaspora deuxième signal par exemple benn bureau à Dakar les tous les Sénégalais avaient di que les jeux sont faits. premier tour wala deuxième tour. mais euh, niveau du, du deuxième tour. parce que xam nga sénégalais yi nun léeg-léeg dañ leen dul déglu bu baax wala boog duñu leen comprendre wala ñoom duñ ñu comprendre et comme nous sommes dans un pays où presque man bu moo doyen waxee léeg-léeg. bu ñu nekkee ci mbooloo même suma ci àndul mën naa am kersa ne ko ànduma ci moom mën naa wax ba xaabaabal mu baal ma yaakaar ne mbooloo mi lii mu wax mbooloo mi ànd na ci te fekk na ñoom déglu nañ ko te ñoom dafa mel ni ñoom ñoo ko gën a yeewu et c'est ça qui arrive aujourd'hui et c'est c'est commence par aujourd'hui xëy na ren dafa renforcer wu dafa gën a yokku bu ñu diggee ci débat xëy na dinañ xam aussi lan moo gën a indi yeewute boobu ak euh, doole bi mu ñëwee ci biir yow yaa ngi ko wax yaa naan dafa mel ni hmm. yenn saa yi dafa am kuy joxe le moo d'ordre dafa am kuy joxe ndigal li parce que day mel ni ñoom dañoo déggoo seen biir waxante li ñuy waxante ba lu ñuy demee di def daanaka lépp benn lay doon bala nga koy xam le jour du vote nanga dem ci centre de vote rek da ngay gis nit ñi dañuy toog ànd ak dal di wote di waxtaan di wote di waxtaan mais gis nga bu résultat yi génnee bureau un bureau deux tu as les mêmes résultats. tuuti moo leen di wutale. e loolu boo ko jàngatee en tant qu'acteur politique da nga xam ne il y quelque chose boo xam ne nun war nañ ko jéem a xam ba xool suñu la la différence entre nun et les les l'électorat entre le peuple et les les acteurs politiques affaire bi fa fa fan la nekk. waaw da dem campagne. tu vois beaucoup de choses yoo xam ne si tu ne faire une analyse fine. tu as l'impression que affaire bi fii la te fekk na gars yi moom ñu nga toog fa ñu toog rek bu jour baa ñu wane ñu wane seen seen taxawaay. mais mais mais doyen Moussa Albert loolu lan mooy tax ñi nga xamante ni souvent ñoom ñoo nekk ci nguur ñooy les tenants du pouvoir mais souvent dañu mel ne dañu am benn cécité ba duñu gis te da ngay wax ak ñoom ñu duñu dégg te lii ñëw après day wane ni ñoom gisuñu woon dégguñu woon mais c'est quoi le problème en fait dañuy minimiser di minimiser te yow leer na la ni lii seen kaw la jëm mais ñoom chaque fois dañuy minimiser. ba affaire bi ñëw voilà. Euh, euh, dafa tàmm dafa tàmm euh, benn doxalin ay que moom ministre la wala député la wala directeur général il vit en dehors de réalité tàgg lui bureau këram le solennel alors que askan bi bàyyi moom du changé askan bi il a ses ses habitudes de faire comme ni mu ko waxee Sénégalais dañu gëm euh, dañu gëm voter mais dañu gëm politique aussi ce qui fait que euh, politique euh, sénégalais bi d'accord na mën na am xuloo xeex réeroo mais il accepte tout finalement dans le jeu politique mais gis nga lu mu bañ mooy ku ko xañ dem voter ça le Sénégalais ne le supporte pas donc ñun am nañu modèle démocratique on a un modèle si si le Sénégal tient jusqu'à présent c'est qu'il y a un modèle cest à nit ñi xam nañu ils doivent voter ils ont mënoo ko tere wax sénégalais la la liberté la liberté de dire ce que tu penses bon la liberté de critiquer mënoo ci dara la la liberté de dire que je ne suis pas d'accord ñun am nañu une culture démocratique Et ce modèle la euh, il est déstabilisé par les conflits entre les partis politiques mais modèle bi comme ils l'ont dit tout à l'heure ça di que tension dafa bokk ci suñu modèle bi ñun 2024 2012 euh, 2000 euh, 2000 toutes les élections présidentielles depuis depuis euh, depuis les les les les grands les les les depuis les les grands politiques ceci si on te raconte que que politique bu ñu demoon élection pratiquement les euh, nit ñi dañu doon bàkku comme lamb donc ça fait partie de de notre culture si ki fekk pour man c'est le modèle kon n'a pas valorisé et ku ñëw ci nguur dafa defe ne il est unique qu'il est différent qu'il fait mieux que les autres qu'il est le le l'élu du de Dieu alors que le peuple la il n'a pas bougé dans son modèle c'est-à-dire Sénégal mën na la bàyyi nga def lu la neex mais je ba bés bi bon Macky Sall jaar na fa ma ma je te dis par à six heures et demie les gens sont ñoom ñoo doon organiser seen rang. pour gaaw mën a voter. mais pourtant kenn xamul kenn laajul keneen kii nan nga nar a hmm. dañu organiser voter dem seen toog seen kër bon Wade pare Diouf pare Senghor sax du ko joxoon chance mooy que ñu doon voter bon c'était <laughs> limité. ah. unité et truqué. waaw parce que xamoon na les. am na ay jamono et sans identification. waaw le chef de village. amul entre tu viens tu amul non non non mais. c'est-à-dire boo nekkee chef de village bi. am na période mën nga ñëw woteel sa sa sa sa sa tu viens avec tes kii. avec tes quoi. Ah, ah, les cartes. ya ngay kii rek yàpp euh, par exemple duñ duñ la identifier. par exemple yow si même yow buñ la joxoon tey yow da nga mën nga voter plusieurs fois. waaw amul waaw amul amul amul amul par exemple yow da ngay da ngay wote wote tourner classe bi. waaw amoon na amoon na mais c'est un léegi léegi par exemple tu représentes ton parti. bu heure añ jot ñu ñu ne añ bi ñëw na ñëw leen añi. yaa aussi ne n'es pas nga dem añi bala ngaa ñëw gars yi sol ko ay ba mu fees te dara nga ci mool parce que yaa am am. mën na def deux cent am. waaw ñu jukki. jukki waaw na am na am na trois cent votants <laughs> trois cent votants dara. non mais vraiment kon. c'est-à-dire que bon voilà c'est-à-dire système boobu nag bon les jeunes de Pastef yi te di système parce que le le gouvernant plutôt, il, il ne sait pas que le citoyen est en avance sur lui. C'est ça le malheur de, de, de l'élite politique actuelle. Que les citoyens en avance sur eux. loolu tax ci Sénégal yi mën na la euh, comme nuñ ko waxee sànq moom xam na ni bésu bésu vote bi non kenn mënu ko teree dem vote. kenn mënul manipuler vote. non ben les jeunes là c'est la c'est la preuve la la nouvelle génération ñi nga xam ne am nañu dix huit ans wala vingt cinq ans la da nga xam lu ñu lu ñu préparé. xam nga lu tax ma naan minimiser parce que dama gis ay caravane y avait tellement de jeunes mais le parti au pouvoir il disait que ñii di topp caravane yëpp kanam ci carte mais yow loolu au contraire dafa la waroon tiital alerte la mais yow ngay minimiser ni ñoom amul carte d'identité nga teg ko fan. waaw xam nga xam nga Euh, opération de. comme Wade rek. mu naan daje naag Macky ah, opération de communication la rek. pour pour xaw pour pour wàññi. pour pour wàññi aar ak enthousiasme ñële mais boo bu fekkee ne homme politique dëgg nga boo weetee da nga da nga am inquiétude. parce que ce qui est clair c'est que toute cette foule ñoom ñëpp amuñu carte mais tu peux imaginer que majorité bi am na carte parce que boo ko xoolee ci ci kër yi rek. foofu ngay imaginer da nga gis par exemple une maison qui compte un nombre <clears throat> de dix personnes par exemple yoo xam ne majeur nañu le plus souvent cinq à six au moins am nañ ci carte donc la majorité te jeunes yi egg nañu foo xam ne on les avait incité on les avait poussés on les avait conscientisés à les se faire pour mettre un terme à à à ce qu'ils vivaient donc ñu ci bëree bëri demoon nañu inscrire Eh, mais comme opération de communication la da nga naan ñi amuñu carte ak yu demal mais les jours yi da nga xam ne euh, véritablement ñi ci bëree bëree bëri amoon nañu carte et ça fait la différence sauf que dama xam ni y a y phénomène bon par exemple moom lu lu mu wax c'est très important que politique yi bàyyi ci xel c'est-à-dire que euh, ñu ngi ci phase de dépérissement des partis politiques mais Euh, le phénomène bi nga xam ne mënoo ko maîtriser. c'est la masse silencieuse c'est-à-dire que tu as les partis tu as mais ñu fa nekk ñi nga xam ne wóor na la ñu dinañu voter c'est peut-être un million di fichier électoral alors que tu as six millions les quatre million sont silencieux gis nga ñooñu le ils sont sans bokkuñu ci benn partie bokkuñu ci benn coalition ñoom lu ñuy ware mooy seen carte d'électeur c'est cette masse-là. Moi, depuis euh, deux mille en tout cas, c'est elle qui tranche. et loolu mun mënoo ko prévoir tu peux pas savoir que Wade day daan wala Diouf day daan wala Macky Sall day daan parce que les gens ça san les intéresse même pas de parler de politique lu leen intéresse mooy que am nañu seen carte ñu ngi leen di xaar. du ñu débat mais dañuy suivre nag. mais ils écoutent tout le monde. Mm ils sont actuellement même le phénomène extraordinaire c'est qu'ils sont ils sont informés bien sûr ils sont plus informés même que les acteurs politiques xam nañu les tendances moi je suis dit à une semaine de l'élection présidentielle mais soo bàyyoon xel ci ñe ci ñenn profession yi tu as la tendance globale bien sûr yoo dem ci gargot yi rek wala ngay dugg ci taxi wala ngay dem ci yenn grand nga xool rek nos ministres nos DG bon ils méprisent ils ne savent pas qu'est-ce qui ce trame ils, ils savent même pas l'utiliser c'est-à-dire qu'ils préfèrent payer des milliards pour des sondages par exemple ils dépensent des milliards pour avoir des sondages alors que les sondages là sont mais c'est pas des so c'est pas des sondages le vrai sondage c'est que tu sondes l'état d'esprit de ta population mais un sondage entre nous euh, intellectuels la je te dis que moi je vais voter Macky Sall l'autre dit Idrissa c'est entre intellectuels on, on bouffe l'argent des riches ouais exactement c'est exactement ça parce que dangay gis ay nit génn di wane ne ñoom xam-xam di voilà féete ci benn camp di la gëmloo que ni non vraiment ñii di la gëmloo ay ay ay voilà di la vendre de l'illusion mm-hmm. bu finalement après bu nërmeloo ñooñu xaw ma après nan lañ lay xoolee xaw te xam naa ñoo njëkk a daw dootu leen gisaat sax parce que li doyen wax am na mais aussi li am aussi mooy da ngay sentir ni les tenants du pouvoir dañuy dem ba période campagne wala campagne jub si ñuy inaugurer di def ay ay di wane li ñuy def daal te moment boobu les dés sont jetés ñiy décider voté décider nañu même boo ne woon suba la élection yi nga tab nga inaugurer tali jama li ñuy décider décider nañ ko ba pare Euh, li nga ci li nga ci war a jàngat mooy loo bon comment se fait-il que ñi ngay wax ñi ñëpp bu ñu ñëw au pouvoir askan wi leen di gunge ñoo leen di kañ ñoo leen di dugal palais mais bu ñuy génn dafa mel ni askan ay yaat la leen di topp mhm. lan moo lan nan lan def désamour bi bi de l'amour à ce désamour mhm. nan lan def ba egg si foofu mooy en général du ñu comprendre la commande citoyenne mhm. du ñu xam sénégalais yi mobiliser fal la ñoom lu ñu la yónni duñ ko comprendre mission bi duñ ko comprendre soo xoolee 2000 Ablaye bi muy ñëw man moo tax damay wax 2012 du alternance. 2012 déedéet. alternance 2000 2000 mooy non 2000 mooy alternance. 2024 du alternance. 2000 non 2024 ak 2000 mooy alternance mais 2012 li fi am du alternance. 2000 2000 askan wi ñoo jug ni régime socialiste doy na. na nanu fi jógee doy na ak am yaakaar ni Ablaye Wade mii non rupture mooy soppi soppi ba pare mise ci benn candidat muy Ablaye Wade li amoon 2000 moo am 2024 seen nga après à part Diouf ak Wade ñi ci ñëpp zéro la ñoom bi polarisation boobu moo amoon 2000 2012 qu'est-ce qui s'est passé kenn doyalul woon ci Wade de on n'avait pas dit que Wade n'avait pas bien travaillé mais dañu d'accord woon ci mu def troisième mandat loolu mooy dëgg ces gens se sont battus contre Wade parce qu'il ne devrait pas se présenter mu forcé ne dafay présenter. d'accord mais 2024 bi moom li amoon 2000 moo am mooy un peuple qui a tellement souffert et qui et ki a exigé mais un changement catégorique. ma ne est-ce que ñu ngi comprendre askan bi lu ñu wax seen déchiffrer nañ seen seen seen vote bi xam nga il fut yàggut de matu sax at baatu nekk patriote mën nga cee dem kaso. <laughs> mais se grave nga ni man patriote la mais mën nga cee dem kaso. <laughs> ñu bëri dem nañ kaso ndax lan photo photo profil téléphone. benn leader non ñu bari dem nañ ndax lan bracelet hmm. ah te tey le c'est le mot patriote qui se vend le mieux au Sénégal mais loolu kii def politique moo tax man la ñiy def politique danoo danoo danoo danoo war a sant mais kuy def politique loolu moo nekk sa vocation citoyens yëpp se reconnaissent en des patriotes ñu ni lan la askan bi bëgg ci deux mille à partir de deux mille lan la askan bi bëgg xam nga ñun ay gestion sobre vertueuse yi loolu la ñu daan naxe tey on a le modèle sénégalais le modèle sénégalais mooy lan àdduna bépp naw ñu mooy régler li ngay régler ci fulla ak ci fayda ci jàmm tax la première mission de ce nouveau régime c'est de mettre le Sénégal dans un climat de paix et de stabilité c'est-à-dire euh, loolu loolu pilier bu am solo la ci ci ci ci chantier yi fexe ba ñu tàppe xol yi sénégalais yi bëggante sénégalais yi ñimente am na lu baree bari luñ ci mën a liggéey lan mooy le modèle sénégalais ñun ñun ñëpp a sëngee moon soo demee bitim réew léegi dañ lay joxañ yow sénégalais nga mais yéen nan ngeen def ba wàccee niveau bii ngeen wàcc. même dëkk yi nga xam ne sax ay coup ñoo fa am mais dañ doon dañ ñu doon. rey ñu dañ ñu doon dan mooy le modèle sénégalais mooy li të dëkk yu bari ci àdduna léegi mooy su ne këtt ni joon askan wi mën nañoo jëlal seen bopp seen destinée en main kon homme politique bu ci fëgg sa dënn bàkku jàpp ne danga am mbooloo ba déggoo askan wi li ñu wax mais dangay ngay gestu bu subaa dootoo gis kenn dañu yàgg nax askan wi lu ne nax maanaam slogan bu nekk jaar na senegal ku ñëw da ngay am sa slogan jàpp ni ak des erreurs li ma gis rek noonu la fekk ne déggoo message bi mooy ni ma wax la commande citoyenne xale yi ma gis nii xale yi ma gis même hymne national bi sax war nañ koo xoolal c'est-à-dire xale yi boo déggee seen discours c'est-à-dire on on doit tendre vers la sénégalisation de la république mm-hmm. on veut une république sénégalaise soo seetloo lan moo tax euh, président yi fii jaar yépp même dañuy am yéene mais mujj dañuy am benn benn benn distance buy am ñoom ak population bi mooy bu ñu leen di fal xale yi dañuy am fierté fal le président de la république du Sénégal mais ci doxalin bi démb rek commencé na ma naqarlu ko trop nag yiñ lay takkal ak yiñ lay ràng ak mais c'est c'est pas sénégalais ça mais ordre national du lion ordre na qui qui ont des relents sax maçonnique mais yooyu du suñu cosaan du suñu aada du suñu xeet dugal ci benn carcan ñu dem a dem ba gis ni yow président de la république nga mais nasaraan bi sax nga gën a déggal moo ñuy daal ci suñu président yi am yépp le système européen ngay jéem a copier man gëw ma ni coach président de la république du Sénégal buy def prestation de serment par force dafa war a costume cravate man gëw ma loolu. non c'est pas une obligation et on l'a <laughs> man loolu la mais xam nga loolu la mais man. mais man carcan boobu laay bañ ñu dugal ñu ci parce que bis buñ ci buñ ci duggee lii amoon mooy amaat. on veut une république sénégalisée. avec les valeurs sénégalaises une république par nos tradition et nos coutumes parce que ci loolu la ñu xam te chance su Ousmane Sonko ak ak Bassirou Diomaye Faye mooy ci sama may liggéey man ci profil ci casting dama ci liggéey lu bare bare ci seen ci gis ni ci apparence mais c'est des Sénégalais. ah bien sûr. cest à te loolu dafa déterminant fii fii ñu toll fii réew mi toll laa wax. nga am pétrole nga am gaz àdduna bépp di la di la di la di la di la teg bët. ñii di yoot ñii di jaar ci suuf ñii yéene la ñii yéenewul la mais tu l'attraction ku xamul dara ci politique mooy mooy fàttani le Sénégal fait l'attraction du monde actuellement nii ak fi tension yi toll au niveau international consécutif ak li am Sénégal ci xéewal ñëppay teg bët Sénégal. mais fi Sénégal toll aussi est-ce que les sceaux de la République la ñu war topp di lijjanti. wala les urgences. non non non non non c'est-à-dire non parce que boobu noonu parce que boobu dafa nekk lu minime. loo xamante ne pour sénégaliser. y a mm. tellement de choses à sénégaliser xam nga euh, tey sénégalais yi bi ñu wotee ni ñu wotee war nañoo jéem a xam. ban message la ñuy yónnee xool lan mooy seen préoccupation tey ginnaaw bi nga xamee ne renouvelé naa bien sûr euh, sama félicitation euh, au président élu Bassirou Diomaye Faye ndax nun ci suñu coalition def nañ ko déjà traito tôt le dès dès le dimanche quand on a Aly Ngouille Euh, on a sorti deux communiqués bu njëkk bi mooy bi tendance bi wanee ne euh, il gagne dans le département de Linguère donc mu génne ñu génne un communiqué pour féliciter beneen bi mooy bi nga xamee ne ay genre tergiversation mu ngi mel ni mu ngi bëggoon a am mm-hmm. candidat bi euh, président Aly Ngouille Ndiaye defaat beneen communiqué mm-hmm. pour alerte et attirer l'attention sur le fait que nit ñi dañoo obligation respecter le, le, le suffrage des Sénégalais mhm. et que les tendances étaient nettes et claires et mhm. qu'il pas à, à, à tergiverser pour envisager éventuellement mhm. d'autres postures donc tout ça euh, ça montre que nit ñi dañuy analyser jàngat xool réellement sénégalais lan la ñu wax te boo nekkee un démocrate boo ko xoolee da nga ko war a nangu te accompagner ko léegi nag tey il faut que ñu xam sénégalais yi lan mooy seen préoccupation ba tax ñu wootee nii ñu wotee jàpp naa ne c'est pas quelque chose de symbolique du ay symbole très sincèrement mais ay fait yoo xam ne nit ñi dañ koo dund jàpp ne yooyu waratu fee amaat te jàpp nañu ne pour plus de sécurité li gën a wóor mooy buñ fi teg nañu teg koo xam ne gëm nañu ne du laale dara ak li fi nekkoon indi ce qu'on peut appeler un vote utile loolu. yéen dund ngeen vote utile bi de. tout tout le monde. parce que et, tout le monde parce que parce que 0,47 pour cent tout le monde la la dundul ko te nit ñi te te nit ñi nit ñi dañ ko sentir bien avant. ah oui yow sentiroon nga ko. non non xam nga aussi ti tu discutes xam nga boo nekkee ci biir sénégalais yi. Mm-hmm. danga dem ci mbooloo di wax ñu wax la ne xam nañu ne candidat yi fi nekk am na fi ñoo xam ne am nañu profil bu wóor mais situation Sénégal toll na foo xam ne bu ñu pas bu ñu tasaaree carte yi deuxième tour mën naa am te bu deuxième tour amee on peut on peu on peut euh, présager de de de de positions des uns et des autres parce que deuxième tour bu amoon kii mën naa ñëw jàppale kee kee jàppale kee affaire yi jaxasoo donc les gens ont plutôt préféré faire un vote utile et booy def vote utile aussi da ngay xool bu fekkee ne da nga ne on est contre le système te jafe-jafe yi ak problème yëpp système bi par exemple moo ñu ko indi ba sénégalais yi gëm ko. da ngay xool ki gën a. da ngay xool ki gën a ki nga jàpp ne moo gën a wóor. c'est ça en réalité. ki gën a opposé wu. ki waaw. à l'extrême waaw bu ko defee bu ko defee def lay wóor ne lii moom dana fi jóge te bu fi jógee. jàpp nañu ne dootul dellu si c'est la raison pour laquelle boo xoolee te li indi loolu aussi ay ay mbir yu tegaloo la depuis plus un certain nombre d'années boo xoolee par exemple euh, euh, dans un premier temps euh, Fall wax na fi léegi le fait que euh, Ablaye Wade a voulu faire un, un troisième mandat mais le fait que Macky Sall waxul waa waxul déet ci affaire troisième mandat tax na dans un beaucoup de sénégalais gëmoon nañu ne kii buñ ko bàyyee ci troisième mandat la jëm kooku c'était une une raison pour lu fair barrage boo jëlee aussi par exemple ni ñu yoree réew mi nga xam ne nit ñi dañu sant dañu am santiment li wax li wax priorité nga xam ne mooy farata nga xam ne dafa mel ni état bi xamul farata xàmmewul farata ak sunna ba ni mu war a accorder priorité au priorité defu ko sénégalais yi gisuñu seen bopp ci ni nga xam ne noonu lañ yore réew mi mën nañu def ay investissement yu lourd ay infrastructure def fi stade def fii lii def fee lële mais sénégalais yi dañuy jàpp ne en définitive li boo ko xoolee ak jafe-jafe ñuy dund presque ak xeetu yàq la donc phénomène de rejet yooyu la ñu tegale ñu ñëw aussi violer un le les les principes fondamentaux d'une démocratie parce que ab président bu demee ba wax te jëf ne moom il va réduire toute l'opposition dans sa plus simple expression museler ni ko Fall waxee léegi mu dem ba nga xam ne par exemple benn am na baat boo xam ne sax boo ko réclamé woo rek mën na laa yóbbu kaso donc ce sont des faits qui se sont yoo xam ne dañoo tegaloo tegaloo tegaloo Sénégalais yi dem. bi xam ne lii jëmul kër te itam mooy war nañoo moytu changement boo xam ne peut-être euh, changement de personne lay doon ñu xool ñaar ñi nga xam ne peut-être ñoo gën a jàkkaarloo ñoo gën a nekk en position euh, de combat ñu jàpp ne kii ginnaaw soxla wuñ ko xëy na bu ñu demee ca kële ñu may li nga xam ne moom la ñu soxla ci réew mi. Mhm. li ci bër li ci yeneen yeneen dysfonctionnement anomalie yi da ngay xool réew moo xam ne dem nga. ba yaakaar muy ndaw ñi dem nañoo dem a dem ba amatuñu benn yaakaar ci seenam réew ba nga xam ne nit ki <coughs> mën naa jàpp ne tey di dem ci géej gi te mu wóor la ne mën nga faa des daani ki du la indil benn benn njàqare du du du la taxa a du rien kenn mënu laa ba kenn mënu laa tiital ba nga bàyyi ko. Mhm. xam nga kooku foofu la yaakaar bu jeex mën a yem. am réew nag bu yeggee foofa ba nga xam ne yaakaar amatul dara amatul. danga naan moi je n'ai plus rien à amatuma lenn lu ma mën a ñàkk parce que ginnaaw aw ma dara te ñii bu tant que ñu ngi fi du ma du ma am dara à partir de ce amatuma lu may ñàkk dangay ngay daal di jël position yoo xam ne moo lay may nga am le minimum de chance pour que changement yi nga soxla nga am ko li des nag mooy acteurs politiques yépp mën a comprendre message boobu en particulier mhm. l'équipe gagnante mhm. xam ne sénégalais yi moom fii ñu toll am na lu bëree bëri. dootuñu ko nangu dootuñu ko nangu. Mhm. te am na ñu bëree bëri mobiliser nañu pour changement bi am ils sont à l'affût ñu ngi dégloo ñu ngi xool ba xam les actes qui seront posés. moo tax ñooñu ñu ngi leen di ñaanal ñu def une bonne lecture de pose des actes yoo xam ne day redorer un peu blason des acteurs politiques. parce que gis nga ñoom bu ñu réussiree nit ñi dinañ commencer gëmaat. Mhm. la les les acteurs politiques. mais si par malheur personne ne le ñu poser des actes yoo xam ne sénégalais yi dañ ciy génn mhm. bu keroogee daanaki ku taxawat sax di wax waxi parti politique boo sàgganee kenn du la déglu parce que la preuve aura été fet que véritablement parti politique yi bariwuñu njëriñ léegi itam wax nañ fi dépérissement des partis politiques loolu bokk na ci li ko waral mooy tey par exemple en réalité parti politique dafa am jamono pour nga mën a participer ci yenn élection yi il faut nga am parti politique mais léegi amatul benn élection boo xam ne soxla na nga am parti politique pour mën ci participer et ça montre que progressivement fa ñu jëm mooy nit ñi ñu nekk sur le terrain di yëngatu di participer à des élections sans avoir besoin de de de, de parti politique et loolu progressivement ci effectivement euh, dépérissement boobu euh, da koy gën a accélérer ci sama xalaat mais aussi doyen le la hein, de ces partis politiques, c'est aussi la fin de ces idéologies qu'on qu qu qu voit de, de, moins en moins. léegi pour nga gis kuy réclamer wu ci idéologie c'est très très rare donc finalement euh, finalement voilà on assiste à quoi finalement et surtout ci li ñu doon wax sànq avant ñu ñëw ci yow mooy vote utile bi parce que vote utile bi pour weddi ko du yomb parce que boo gisee Ali Idriss Seck am 0,99 pour cent Aly Ngouille Ndiaye am 0,47 pour cent ak ni ñuy yàggee ci politique ñu ni Bassirou Diomaye am na 54,28 pour cent pour la première fois nga nekk opposition nga gagné pouvoir te demoo deuxième tour donc vote utile bi ñuy wax pour weddi ko du yomb de. non non du du yomb mais euh, c'est plus qu'un vote utile c'est cest dire que euh, là. c'est un basculement c'est complètement un basculement parce que euh, soo xoolee les jeunes et les femmes tu as au moins benn lecture pour les jeunes c'est que euh, le système ils ne sont plus dans le système mmh. c'est c'est un vote sanction d'un système mmh. Mmh. ah ils ont 18 ans cinq ans 35 ans euh, lu ñu gis doyatu leen dañu bëgg lu lu bees c'est ça le vote jeune c'est ça le vote euh, d'une partie des femmes maintenant l'autre partie complémentaire pour les femmes c'est-à-dire que la femme fait partie des des des plus vulnérables au Sénégal celles qui souffrent de socialement culturellement politiquement donc ñaar yooyu soo ko boole c'est-à-dire une jeunesse qui dit que moi je ne veux plus de ce système et des femmes qui disent que je ne peux plus supporter mais s'ils sont majoritaires ils tournent ils, ils tournent une page c'est-à-dire autant ils tournent la page du système euh, présidentialiste mais il tournent la page des partis politiques traditionnels. waaw léegi lan moo tax nag ces partis ñiy woote ni ay experts lañ ci politique lan moo tax mu mënuñu woon gis loolu. parce que parce que avant élection ñu bëri ñu taxaw ni Sénégal kenn mënu fee gagner élection premier tour nga teg ko fan. no c'est-à-dire que. Mhm. bon loolu laa lay wax basculement. C'est-à-dire que oh, le, le PASTEF a réussi ce, son, sa propagande en faisant croire fermement pendant dix ans. Le discours de Sonko est constant, il n'a pas varié. Ouais, ouais. Que système B, on n'est pas dedans, on n'en veut plus. Mm-hmm. Tout le monde est convaincu de ça. Au bout de dix ans, tout le monde récite le, le, le, les versets de son corps. Mm-hmm. Bah, les, les, femmes, les femmes se rendent compte que bah, Euh, la souveraineté mais, mais c'est les femmes c'est c'est la femme sénégalaise qui a besoin de souveraineté plus que qu'un autre mhm. euh, ce qui fait que pour man c'est un basculement maintenant l'avantage que le passif tire de ça c'est c'est idéologique c'est-à-dire le passif c'est pas euh, le patriotisme seulement non c'est bon euh, ce qu'on appelle l'idéologie du changement y a il y a cette idéologie du changement elle est là depuis euh, peut-être vingt ans trente ans c'est elle qui traverse toutes les sociétés. Oui, mais on sent que le changement, c'est changer. Qu'est-ce qu'on a réellement changé? Mais ça dit qu'on pas peut... les personnes, parce qu'on retrouve des personnes qu'on qu'on disait du système mhm. et qui se recyclent en s'approchant de Pastef ou de la coalition. L'idéologie du changement, ça dit que bu ñu fa àggee, c'est à cause de la mondialisation a favorisé ça. Hum. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus être du passé, dans le passé. Les gens, ils veulent avancer, ils veulent progresser. C'est ça l'idéologie du citoyen actuel. N'importe quel citoyen, il ne veut plus rester là où on veut le maintenir. Il aspire à changer. C'est cette idéologie-là qui est imparable. Okay. Et Sonko a réussi à l'incarner. tu, tu prends partout euh, où tu vois les victoires de, de, de, au niveau des élections, les changements, c'est l'idéologie du changement qui bouleverse l'ordre. Et la mondialisation, elle, elle, ne peut pas, elle résister à ce vent de changement-là. Même bon, les, les régimes militaires qui sont dans le Sahel, mais nous avons avoir coup d'État. Ça a changement. Oui, bien sûr. Ça dit que le, le Sahel ne peut plus accepter de vivre dix ans sous le contrôle de la France qui ne règle aucun problème qui ne règle aucune situation sociale et économique et et mënoo dëkk ci loolu ça il faut mu am changement je crois que c'est cette idéologie là que qu'il faut qu'il faut comprendre maintenant il faut il faut l'accompagner il faut l'accompagner ça dit que euh, on ne peut pas tout changer en même temps on ne peut pas tout changer en même temps. Changement, mais le changement que le nouveau régime doit faire c'est de réfléchir présidentialisme bi baaxul tout le monde est d'accord quelle est la fonction du président de la République comment l'encadrer un président Dieu là un président roi là on n'en a pas besoin surtout que Diomaye il n'a même pas cinquante ans il peut pas être roi donc lui il faut l'encadrer pour que mu il peut fixer quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire que Diomaye n'est pas là pour le pouvoir pour pour lui-même pour sa famille pour son parti il est là pour que la fonction présidentielle soit le, le moteur de l'État hmm. deuxième problème Ousmane Sonko moi je trouve que c'est une bonne chose parce que il va être un premier ministre qui ne va pas lorgner le fauteuil du président de la République <laughs> ah non ndax moo ko jox. ben voilà voilà donc lui il va lorgner il va lorgner une rupture donc Diomaye Ousmane Sonko je ne sais pas qui va être le président de l'Assemblée nationale gis nga suñu amoon euh, cette euh, cette ossature là dans dans deux ans jeunes yi dinañu xam lan mooy rupture avec le modèle présidentialiste. le le super présidentialisme là day day dañ. parce que déjà lu tax muy dañ mooy le Diomaye son leader c'est Sonko. et il nomme Sonko comme premier ministre mm -hmm. donc cette net amatuñu benn président de la république mooy buur mm. mooy bumi jomaay lu muy def Sonko da koy jox gis-gisam et tu as vu hier par exemple à la télévision à chaque fois qu'on montre l'image de Ousmane Sonko mm pendant que Diomaye faisait son discours de mm-hmm. président ah investi ah les gens soutenaient noo démb nag ci salle bi ñaari ah. nit ñoo fa amoon ay ovation mm. muy Mamadou Doumbia mm-hmm. ak Ousmane son xaw ma nag nan lañ ko mën a analyser peut-être à la fin de l'émission ngeen analyser <laughs> ñaari aspect yooyu léegi yow euh, Pafar uh-huh. ñu ngi wax ay super présidentialisme yooyu daf fi dañ et cetera et cetera mais aussi yenn parti politique yi war fee jógee jaare fi rek ànd ak Macky Sall dem mais est-ce que vous vous êtes conscient de cela Idrissa Seck parti politique yenn parti moom seen tur dégg seen tur rek on on va on va les classer dans les registres de l'histoire ah si gis nga. xam nga nag loolu mooy mooy danger. mais xam lan mooy danger aussi jàpp ni. Ah, ngay gën a tombé dem ci fond. trou bi bay creuser le fond du trou. ba pare yaakaar ni di nga génnaat ba. xam nga loolu mooy danger. su may wax ni loolu mooy danger. Mm-hmm. may may ma rek. dimbali ma rek. yéen il faut que yéen nit ngeen dimbali ñuy def politique dimbali waale askan vocation parti politique du dem rek élection parti politique élection benn dimanche. parti politique dafa am rôle d'éducation citoyenne man li may def nii. mais vocation c'est aussi conquérir le pouvoir non cest la vocation d'un parti politique. c'est pas exclusivement la vocation d'un parti politique bokk ay élection rek. taxul no nga gagné wala nga perte. taxul parti politique di exister. seen nga loolu dañ ko war a génn Sénégal. parce que su ma la déggee li ngay wax yow da ngaa insulter sax. les milliers de militants et responsables qui sont dans le Rewmi qui abattent un excellent travail ñooñu compté wuñu maanaam Idriss Seck mi dem élection rek yow moom nga jàpp ne moom moo compté non man li may d'accord mooy à partir de ces résultat parti yëpp jàngat ci y suñu parti c'est-à-dire que élection présidentielle rendez-vous benn nit la ak son peuple mm-hmm. ça n'a absolument rien à voir avec le parti d'ailleurs candidat bi sax demewul turu parti bi mm-hmm. waaw pourquoi nga bëgg ni léegi parti bi na see nan ko fàtte. pourquoi parce que non dama laaj dama non dama dama la posé. non da nga dama man sax question bi bi nga ko posé man damaa tiit. non waxuma parti politique yi ñu ñu rey leen su may wax la dépérissement des partis et des coalitions de partis waxuma ñu faagaagal leen dama ni parti il faut ñu xam ni élection kese nekkatul créer parti pour dem élection. créer parti pour ànd ak ki gagné élection loolu moo fi war a jógee loolu laa wax le dépérissement des partis. mais le peuple xam nga peuple bi kañ lay sentir ni parti bi existé na boo ma dafay leer. naan xam nga askan bi kañ lay sentir ni parti bi existé na échéance jub si. ci la ñuy sentir xam nga li ngeen di liggéey ci suuf xam nga déglul xam nga élection yi élection yi élection yi mën naa nax ku nekk ah oui non c'est que yi yéen ñi nekk ay observateur ak ñun ñuy def politique élection yi ñun ñëpp la bett te dinaa wax ci anam bu mu ñu bett. ñëpp la bett vous pensez waaw je vais vous dire pourquoi. élection yi dañoo embarqué débarqué ñu dañoo embarqué ci processus bu normal. Mhm. ñëpp à date échue ñu dajale seen i parrainage dem déposer ci conseil constitutionnel. Mhm. ñëpp war a dem élection présidentielle le vingt cinq. février février. Mhm. président bi moom nekkul candidat. moom mu am candidat yeneen candidat yi préparé wu pour dem ci ay élection yu libre transparente ñu dem ba ci cëppaandaw ga ñu arrêté processus bi fekk nañ ñu am na ñu bari defoon ay dépenses et cetera ñu dagg processus bi xamatuñu sax kale kañ na ni dem élection présidentielle loolu am na fi wala amu fi. am na fi waaw. président de la république bi nga xamante ni moo waral coow lépp vous imaginez en 2007 su Ablaye Wade xaaroon ba biir campagne électorale mu génn Idriss Seck kaso Idriss Seck du ko gagné premier tour mais président bi nga xam ne moo jël parti politique jël ña koy incarné noot leen jël dugal ci kaso bi créer situation boo xam ne amul mbooloo mooy dem ci Sénégal ci six mois yi weesu te doo fa dégg baatu Sonko namm naa la moom mu créer situation boobu président boobu moo dem ba élection yi ñu dëgmal ko mu dàq élection yi lan la ci réussir ci dàq élection yi génne Ousmane Sonko ci kaso bi bu mu warul woon dugg génne Jomaay Fay ci kaso bi mu warul dugg en pleine campagne électorale. voté loi d'amnistie. waaw mais mu mel ni moom sax directeur campagne coalition Jomaay ak Sonko la. ndax le fait que non ci doxalin c'est-à-dire que loolu laa wax xam nga dama ni déséquilibre bi am mais parti politique yi ñépp a ko yëgandoo ñépp ah, parce que non non cest dire que déséquilibre bi mooy. Euh, li may wax li may wax moo tax man la ñun observateur yéen observateur yi ak ñun ñu def part bu nu bu nu ko rusoo waxante xam nga dëgg gi aussi danga koy boo bëggee regle benn problème da ngay wax dëgg bi. après ñu jàll ci leneen. waaw qu'est-ce qui s'est passé. dem nan ba ci ba kenn amatul woon sax même élection yi même campagne bi dem nan looy dem campagne yaa ngi jàpp ni sax ak yu yi ñu doon dugal ak kii campagne bi sax mën na noo bañ a egg ci ay élections. mais bi campagne bi démarré ñun la pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu dem campagne boo xam ne est-ce que mat na 15 jours ñëpp tënku ci booba sunu yitte yëpp nekkatul nekk président de la République mais sunu yitte mooy Sénégal nekk ci jàmm ñu génn ci guute gi ñu nekk. non ah, yéen waa non c'est-à-dire que du ñun dama ne. Sénégalais yëpp toute obédience confondue kenn amatul woon yitte. wax ay election li nga doon wax mooy ñun lii ñu nekk giraawaale gii ñu Macky Sall dugal mais nan la def ba réew mi génn si ci jàmm. génn mooy dem élection. waaw non dama xam nga ci xamoo élection yi kañ la nee naa la ba ci campagne électorale bi kenn jàppale woon ni sax élection dina am à la veille. waaw d'accord à la veille du vote. Mhm. ñu ngi doon suspendre ci décision conseil constitutionnel élection yi campagne bi pré campagne bi. lu bare ba ca dépôt parrainage ba ca list bi conseil constitutionnel génne dafa am ay entorse yu baree bare bare yu ñu def ci processus électoral bi mais loolu ala kulli àll njeexital gaa lan la il faut que mu am ñenn ñu mu favoriser il faut mu am ñenn ñu mu xañ. d'accord léegi Déthié. waaw bu ma dégloo Pape hmm. dafa mel ni kon génne bi ñu génne Ousmane Sonko ak Jomaay ci kaso bi. Eh, moo loolu de. Eh, waxuma lool de. amiin ah, waxoon ni dafa dafa mel ni dafa mel ni sax moo nekkoon xam nga li may bañ ñu yaakaar ne génn gi leen génn xam nga ñoom dégg nga leen sax ñu ni ñoom bu ñu yëgoon sax des ci kaso bi ci jàpp naa ne ñoom bu ñu desoon. laa bëggoon laaj de ci. parce que non danga ni Macky Sall dafa mel parce que parce que lii mu mujjee tey li mu mujjee bay xëccoo di rey boppam ci loi d'amnistie li mu mujjee génne Ousmane Sonko avec les honneurs ak Diomaye su ko njëkkee woon Sénégal du am problème yi mu am yëpp. mais dëcc. maanaam persécution balaa ca persécution ba. est que xam nga benn affaire nga bàyyi woon leen ci kaso bi du tee. mënoon nañu gagné sax plus que li ñu gagné. waaw cest dire euh, man li may fàttali foofu rek mooy position bi nga xam ne dès le départ au niveau de la coalition Aly Ngouille 2024 moom la ñu am très bi ñu valider la candidature de Bassirou Diomaye Faye immédiatement la. suñu candidat wax ne il faut que nit ñi qui soit respectueux des décisions du conseil constitutionnel et que dès l'instant que wax nañu ne kii day bokk dañ ko war a bàyyi mu am possibilité participer convenablement et correctement ci campagne électorale bi par conséquent nun de tout temps nous avons été pour que effectivement nit ñi ñu bàyyi leen ñu exercer seeni droit gis nga euh, problème bi euh, en fait fi mu ma fi ma ko gisee mooy le fait que le président Macky Sall dàq élection yi ba pare ñu ñuy soupçonner son candidat de collision avec une l'institution judiciaire ñu bëri jàpp ne loolu bu amee ak bu amul li candidat li li président Macky Sall di, def li ko waral mooy xalaat na ne son candidat ne peut pas gagner mu bëgg a ubbi bunt boo xam ne da koy mën a may mu changer ko. Mhm. te gëm de parce que xalaat na ne xëy na bu ko changer dana am chance su gagner à part ce moment aussi dafa am loolu dëkk déclic bu muy def ci Sénégalais yi. Uh mhm. -huh. parce que Sénégalais yi dañu xam ne kii ñu ngi ko doon tuumaal ne dafa bëgg a def troisième mandat. puus nañ ko ba mu wax ne du ko def indi na son candidat dem na ba xalaat ne candidat bi mu du mën a jàll mu bëgg a dàq élection yi pour indi keneen à partir de ce moment sénégalais yi dañuy xam ne li euh, Mao doon wax la contradiction principal mhm. dootul nekkati euh, candidat bi profilam candidat bi profilam mais la contradiction principale dafay ne comment faire pour balayer pour dégager totalement Euh, le le le le le président ak ses stratégie là yi nga xam ne moom lay def. loolu moo nekk la moo nekk moo mujj nekk la contradiction principal et à partir de ce moment contradiction principal boobu bu ko sénégalee identifié basculement bi bi bi bi bi euh, si Albert doon wax ak le euh, référendum wala leneen ak leneen lépp dafay daal di ñëw ñu xam ne véritablement c'est la seule question à résoudre mooy ñii nañu dem ba kii tu verras quelqu'un koo xam ne effectivement dana dana xam dana wax ne euh, le président Idriss Seck a un bon profil c'est un homme d'État nangam ak nangam et cetera mais ci contexte boobu mën nañu xalaat ne de toute façon buñ ko woteelee aussi il n'a pas de il pourra pas certainement gagner donc les voix vont se disperser et à partir de ce moment on donne une bu fekkee ne voix yi dispersé dañuy jox chance euh, à, à, la majorité mais cela ne veut pas dire que au niveau de l'opinion hein par exemple nit ñi gëmuñu ne président Idrissa Seck mën na lii mën na lii mën na lële mais contexte bon amoon mhm. et c'est ça qui fait que ñu revenir ci affaire parti politique yi mhm. c'est ce qui fait que il faut que ñu def benn jàngat bu bu bu bu bu xóot pour ñu mën a interpréter mm. ces résultats mën a xool def une évaluation qui permet à chaque coalition et à chaque partie politique mm-hmm. xool yan mutation wala yan dynamique wala yan orientation wala yan modification yan changement moom moo war a am mais koo xam ne da ngaa jóg rek par exemple ne bon kii am na 1 pour cent kii am na 0 virgule kii am na 0 virgule am na 0 virgule ça c'est le poids réel des candidats jàpp naa ne loolu erreur politique ëpp ko. erreur politique ëpp ko et chaque évaluation maintenant dana am foo xam ne dana fa conduire à chaque parti parti bi dana évaluer. xam ne c'est vrai on aurait pu faire mieux. Oui. mais suñu candidat objectivement egsi na foo xam ne pour ñu incarner encore le changement il faut nécessairement que par exemple ñu indi ay changement au niveau de la la la la, la direction wala ñu wax ne il faut que ñu réorienter lii orienter la mais le candidat suñu candidat il est toujours bon et il peut toujours continuer à incarner un espoir pour le peuple sénégalais. kooku ay évaluation comme aussi, comme aussi le candidat. mooy li ma la wax dama la. deux possibilités le candidat qui part aux élections une fois deux fois mooy li ma la ah, wax dama ne la bu ñu def bu defee évaluation. parti bu nekk bu defee évaluation dana mën a xam exactement faiblesse am fan la tool fan la nekk gis nga fi nga fi sa faiblesse nekk foofu ngay mën a teg sa baaraam pour apporter les changements. faiblesse bi mën na nekk ci ne candidat bi egsi na. ci point boo xam ne objectivement pour qu'il fasse mieux dana jafe. dana jafe à partir parti boobu dana tirer les conséquences surtout mais parti boobu aussi parti mën na évaluer ne en réalité basculement bi nga xam ne moom moo amoon ak volonté ak genre référendum bi am moo tax suñu kandidaa am lii mais cela na correspond pas exactement à. Euh, à son poids électoral. Mhm. et à partir de ce moment là parti boobu dana réajuster peut-être ses sa sa forme d'organisation sa démarche sa stratégie ak yu demee noonu mais dana xam ne son candidat est toujours bon. oui donc évaluation boobu. je crois que moom la moom la nit ñi di def. waaw donc nun pour nun nous avons été toujours pour que ñi nga xam ne ñoo nekk ci kasu bi de façon indue ñu mën a génn participer wax seen xalaat. wax seen programme. parce tey. dès l'instant que ñoom euh, le candida candidat a eu l'opportunité au moins de participer de faire sa campagne de gagner au moins dana mën a xam ne Sénégal bii ma wër ñi ma yiir seen attente lii ak lii ak lii la jël naa taxaw naa jàkkaarloo ak ñoom jël engagement à partir de ce da nga mën a xool nag naka ngay def ba respecter engagement yooyu parce que da wóor ne boo defee un mois deux mois de posé woo acte yu leer nit ñi dana commencé di am ay doute di am ay jaaxle. et à partir de euh, je pense que euh, ça a une excellente chose. que euh, il soit euh, libéré euh, qu'il soit sorti de prison. parce que objectivement un candidat boo xam dañ ko incriminé dañ ko accusé de quelque chose. je crois on l'avait même pas entendu dans le fond. même même dans le même on l'avait même pas entendu dans le fond. kooku objectivement bu ñu ko nee bu conseil constitutionnel ne candidature am na il <laughs> y a pas de raison de le retenir merci euh, li dee ci wax euh, am na lenn lu ma gis ni da ko xaw a omettre mooy introspection ak analyse ak évaluation bi parti politique bi war a def wax na ko mais aussi laspe euh, leader politique est-ce que dafa war a nekk benn benn benn benn constance ñeneen ñi nekk ay variable parce que le leader ñi fi nekk tey falu prouver nañu ni le leader c'est pas toujours lui qui qui doit aller qui doit qui doit se mettre devant bu ñu demee ba situation laaj ni leader bi amul entraînement bu doy wala les capacité dafa war a reculer pousse keneen kooku génn jiite jiite peloton bi te loolu parti bëri bu ñu ko jàngee nañ xam ni c'est pas parce que man maay le leader rek chaque élection man maa war a dem dem naa baaxul dem naa baaxul mais naa ko ne di gérer parti bi mais mun naa tabb keneen ci biir parti bi mu essayer ba xam. waaw non bon euh, en tout cas li nga wax c'est intéressant comme comme question parce que xamoon nañu à peu près que élection 2024 c'est une opportunité pour le vote jeune. oui d'une manière ou d'une autre à partir de 2021 en tout cas. nga am quatre crises euh, vingt et un vingt et vingt deux vingt trois vingt quatre tout tourné autour de la jeunesse et cette jeunesse là euh, dafa am comportement bi nga xam ne c'était assez particulier c'est-à-dire que c'est une jeunesse pendant quatre crises lu doon ñëw comme constante c'est contre le troisième mandat la participation de Ousmane Sonko pendant les quatre ans là C'est autour de ces deux questions-là que tournaient tous les événements au Sénégal. Bon, donc, logiquement, le, le 2024, c'était une élection des jeunes. Et même les partis, quand même, ont compris le message. Hein, parce que bon, les, les, les candidats, euh, c'est autour de 50 ans ou au-delà de 60 ans. Donc même les candidats avaient pressenti la nécessité d'un renouvellement générationnel. évidemment, Idrissa euh, Seck euh, Aly Ngouille Ndiaye euh, Khalifa Gakou ah c'est une génération intermédiaire c'est-à-dire que ñoom mënuñu woon retirer wu de cette présidentielle là mm-hmm. objectivement ils n'ont pas préparé un retrait mm-hmm. mais par contre par ceux qui ont réussi c'est qui c'est Sonko Sonko il est là depuis dix ans mm-hmm. c'est le seul chef unique de de, de du PASTEF c'est lui qui se bat il se bat avec les jeunes pour moi il, il avantage là c'est que dix ans c'est lui qui est le terrain c'est le leader de l'opposition le leader charismatique pour certains jeunes mais lorsqu'il a désigné quelqu'un d'autre il sera plus tard il sera plus tard le de l'opposition mais pour les jeunes c'est la figure emblématique oui. mais on le met en prison c'est ça l'erreur de Macky C'est l'emprisonnement de Sogou. C'était clair et net que, bon, politiquement, tu ne peux pas aller en 2024 emprisonner le leader de l'opposition. De fait, c'était lui le leader de l'opposition. Tu le mets en prison, mais tu, tu, tu, tu mets, euh, tu ton système en danger. Parce que les jeunes n'attendent que lui. Et les jeunes t'ont dit que à trois, quatre reprises, on est contre le troisième mandat. On est contre le troisième, on est pour Ousmane Sonko. tu le mets en prison mais tu donnes au passif toutes les possibilités je crois que ñoom euh, cet aspect-là a défavorisé les, les grands leaders mais deuxième aspect bi c'est que le processus électoral il a été sabordé Amadou Ba est victime de ça Amadou Ba c'est la principale victime de cette désorganisation du processus électoral au point que parce que ce sont ces ministres qui sortent du conseil des ministres qui disent que non kii doyuñu <laughs> les conseils de Macky Sall disent que ba kii bon attanul <laughs> on on perturbe on s'aborde c'est à quelques jours de la présidentielle que l'APR se mobilise que le Benno se mobilise mais c'était trop tard c'est la même chose pour les Idrissa Seck les les Khalifa et parce que ils ne croyaient plus à cette campagne électorale ils étaient démotivés Et pour te montrer comment ça, ça marche en communication, Sonko, il, il sort, Diomaye, il sort. Le lendemain, ils sont en campagne, ils sortent de prison. Le jour même. Le jour La nuit même. Et mais, à la mais, conférence mais de presse. mais risque bi Sonko jël aussi, c'était pas évident. nekk prison non je je veux dire que ba joxoñ keneen ku nekk prison ni moom mooy le candidat. non je veux dire que le soo gisee loolu yëpp. qu'est-ce qui tire avantage de la campagne. c'est Sonko et Diomaye. Parce qu'eux, ils n'ont pas subi le processus perturbé. Ils n'ont pas subi un changement générationnel. Oui. Eux, c'est le, le, le ticket. Mais, mais analyse, sont... analyse aussi le risque. Le risque que Sonko se retrouve en prison Diomaye se retrouve en prison Sonko demande à ses non, militants voilà, de voilà, choisir voilà. Diomaye Maintenant, il y recours le recours c'était pas évident il y avait recours n'oublions pas qu'il y avait un recours contre Diomaye mais ce que je, veux dire c'est pour moi euh, l'analyse il faut non non stratégie jël ak coalition yaa ngi prison waaw mais bi Bassirou jàllee hmm? xam nga quoi moo dem au dernier moment dañ ni hmm. Bassirou mooy le candidat hmm. il l'a dit ñeneen ñëpp Birame Souleye non non non non non euh, c'est-à-dire man dama wax ci kii ñi ñi ñu xam quoi ñi ñu xam ci Pastef. cest a dire moom. moom il a misé sur Diomaye il avait fait des vidéos pour dire que c'est Diomaye yeneen yëpp au cas où la mais risque boobu aussi risque boobu mu jël te dugaloon nañu recours te Diomaye munoon na bañ a jàll te yow leeroon na la ni quelqu'un qui n'est pas de Pastef il avait moins de chance. Oh, mais oui, ça si tu parles de de l'avant. moi je te parle de de globalement. c'est-à-dire que avantage Ousmane Sonko. Euh, mooy comme on l'a dit ah c'est-à-dire de sortir de prison d'aller en, en campagne les autres sont déjà épuisés par le processus électoral. moom mu génn fraîchement. mais maintenant Macky Sall c'est une carte politique. que Macky pour moi honnêtement c'est pas du tout qu'il a libéré parce que il est directeur de campagne non c'est le moindre mal. il se rend compte que libérer Sonko libérer Diomaye c'est le moindre mal. parce que nit ñi dem nañu ba ne Macky Sall ak état du Sénégal mais tu ne peux pas maintenir Diomaye en prison. mais c'est c'est c'est c'est waaw parce que. mais mais parce euh, c'est ça que Macky ne voulait pas. voilà bàyyi ko mu mu Diomaye dem euh, nekk en. catastrophique pour lui donc ça. bon humainement on peut le comprendre c'est un président de la république nga def deux mandats prisonnier ñëw remplacer la ça ça veut dire ce que boobaa doon na remplacer yow tamit fa ñu je crois que c'est ça il n'est pas directeur de. de c'était pas sûr mais par contre parce il a parce que bu génnee kaso ñëw dugg ci palais moom boo defoon ak yow da ngay génn ci palais bi non mais c'est orchestré. même la loi d'amnistie si tu l'analyses. Mm-hmm. mais qu'il le fait plus pour lui que pour Sonko euh, et les autres. donc c'est pour moi c'est vrai c'est une bonne lecture de de de la camp de la présidentielle c'est-à-dire l'impact d'un processus euh, des sabordé mhm. sur l'état de conscience et de préparation de, de et même les résultats est-ce que d'une certaine façon c'est pas ça qui fait que euh, on a cet écart énorme que oui. population bi ni léegi sax amul deuxième tour hmm. dañuy xar suñu tànk tubay pour en finir une bonne fois. mais mais ça ça ça montre a di c'est-à-dire que les gens tourner la page de de de de de la paire et il y avait qu'un moyen c'était de porter Diomaye. Hmm. pour la première fois peut-être génération yu yàggul yi ñuy doog fàttali ko hmm. un vote calme mais dans la souffrance. les Sénégalais ont voté dans la souffrance dafa metti woon cest dire xam nga démocratie bu ñu bu ñu bëgg a confisquer ci citoyen dafa metti de te on l'a vécu dans notre chair propre mm-hmm. Mm-hmm. maanaam ay nit taxaw ni ñoom li ñu bëgg mooy am mm-hmm. réew mi dootuñu ko teg ci ay charte dootuñu ko teg ci loi dootuñu ko teg ci respecter loi <laughs> li ñu bëgg mooy am parce que ñoo nekk ci nguur yi en danoo danoo danoo pesum kanam borom moo koy fajal boppam. ba maanaam crise des institutions bi ñu bëggoon gëm loolu te fekk ni. voilà c'est-à-dire que c'est au-delà. population bi yëpp ni leen crise amu fi. xam nga damay damay rendre hommage. candidat ah. yëpp. candidat yëpp même même Amadou Ba. c'est-à-dire que am endurance la. li mu daj ci campagne bi. li mu daj ci processus bi. te mu jàpp. mujj gi dañoo jël lépp xëpp ko ko maanaam li Macky Sall defoon ci ñaar lépp dañ ko mujj xëpp Amadou Ba. moom mu jàpp. xam nga dara gën a metti nga nekk candidat élection présidentielle ñu ne yaay candidat wu régime bi. mais président bi nee na bugg la nee na wóolootu la. candidat de la continuité. waaw ba pare ñu ne mais président bi ngay con ngay hmm. moom nee na doylootu la. Hmm. mais dara gën a metti loolu ñu ni même yow juge yi da nga da nga diil ak ñoom c'est-à-dire que on a on a de choses dans ce pays que ma may wax sànq sama début kàddu ma ni nañ ci jàngat. ci yan relation la homme politique yi am ak état yenn relation la homme politique yi am ak citoyen ak citoyen les administrés mm-hmm. ah sénégalais de wax na ni ci li ma gis jomaay def ko bërki démb man dal na sama xel pour la première fois nag président def ko quoi donc parce que ñun lan la def goulot d'étranglement bi jàpp président yi fi nekkoon yëpp wax naa ko fi ci émission bi ma bi ma mujjee participer mooy da nekk président de nga ñëw coalition ñun la deux cent membres alliés ñoo la fal yow tu es ñoom ñu lay imposer. Mhm. wala nga ñëw benn parti partage de waaw ñu ni parti bi yaay membre fondateur bi comme ni nga mhm. nga nekk buur ak bu mu ci mhm. parti bi léegi yow pàcc boobu la fal moom ngay jàppee Sénégal. loolu daf ñu yàgg sonal daf ñu dal ci ab Ablaye Wade. léegi Diomaye lan la def nga ni. dafa démissionné sax ci ah responsabilité yi ah. mu amoon ah oui waaw là c'est ci responsabilité yi mu amoon. Mhm. ci ci instance bi waaw en tant que secrétaire général du du dafa démissionné. xam nga loolu signal bu foor la parce que ndox gi homme politique yi nekk woon loolu faj na ko ndof mënta weesu. yow da ngay wuti par kii concours à l' expression des suffrages da nga war a am part yow parti da nga ko am instrument la pour nga am nguur mm-hmm. mais bis boo téyee ci nguur gi yàlla suturaal la jox la nguur jiiteetoo parti mm-hmm. réew nga jiite supposons yow parti bi deux cent mille membres yu dëgër mm-hmm. boo ko amee jàmbaar nga léegi tu diriges dix-huit millions de personnes waaw mais man taamu dix-huit millions gënalu ma man bien taamu deux cent mille bien sûr yow liggéeyee rek soo liggéeyee ba askan wi nungul na sa liggéey dootoo am deux cent mille militants yow da dix-huit millions de militants loolu gënul yomb. bien sûr alors jeu boobu dafa yóbbuwoon président yi ba soo bokkee ci sama parti soo defee loo war loo war sa def ma làq la. keneen ku bokkul sama parti même bu waxee sax wala mu junj ay déburi sarax. mais loolu mu ci régime Macky Sall li ñu gën a dund. loolu la. làkk doom door doom. non moom bi mu commencé no c'est-à-dire bi mu commencé 2012 ñu indi OFNAC. OFNAC dossier un OFNAC permis ca Louga le directeur du transport routier ñu jàpp ko ak quinze personnes ñuy falsifier permis Louga OFNAC jox dossier bi procureur ji Sekk Njaay Wàdd bu bu Mbuur je me rappelle loolu alors 2012 ñu jël ko déféré ko au parquet dans l'euphorie de la victoire. ñu defeere ko au parquet mu def fa une semaine ñu may ko liberté provisoire ab ah, euh, Macky Sall name ko Fera directeur Fera ma ne fi ñu jëm baaxut de. décidément ma ne fi ñu jëm baaxut de sénégalais yi jeunes yi ñuy wax ni. dans leur écrasante majorité li leen gën a naqare ci nguuru Macky Sall déclic bi laa wax. mooy l'affaire l'affaire Bougazelli ku nu jàpp. flagrant délit. filmé non filmé ko. mu ni moom ci jëm boppam sa yàqu na. nga ne ko non man ak yow ñoo bokk parti yàquwoo. doo des ci kaso bi mais est-ce quest de plus méritant que les milliers de jeunes yi ñu jàpp dugal leen ci kaso bi parce que danoo bëgg nit parce que danoo ànd ak nit parce que danoo takk bracelet daf leen gën a nekk Sénégal. teguñu ko fenn fu dul damaa bokk ci njabootu président de lu ma def gongo loolu seen nga acte acte bi jomaay jël mooy démissionné président de la République démissionné ci sa responsabilité ci parti bi seen nga loolu acte bu acte bu ko gën a rëy sax man man man man ak seen tuuba ko parce que au moins dina créer benn ligne de démarcation ni parti yi ñoom fii lañu yem mais lii mooy état xam nga suba ku mu manti doon lopp loo manti def ci nguuru jomaay bu yoon dalee sa kaw doon ne non jomaay danoo dal sama kaw parce que man ak jomaay bokkuñu parti wala bokkuñu sensibilité politique xam nga lu tax moom dès l'entame démissionné na ci responsabilité am pour wax lan man nekkaluma fi benn camp dama fi nekkal askanu Sénégal dama fi nekkal peuple du Sénégal xam nga yorin bu mel noonu la ñuy séentu ci les hommes politiques d'accord voilà. léegi euh, waaw euh, euh, ci ba tey boo si si biir cadre bëgg naa aussi. Mhm. comme tey le trois avril. suba la suñu fête l'indépendance. donc on s'attend à un discours son premier discours à la nation. ce soir à 20h le premier discours du du président nouvellement élu. Bassirou mhm. Diomaye Diakhar Faye tey lañ koy xaar. Mhm. nga brosser waale ci rek. ci discours bi fan nañ ko war a voilà fan la war a def focus. bon. lu may njëkk rek euh, revenir un peu ci aspect important bi Fall soulevé mooy la démission en fait euh, je crois que il faut saluer euh, le PASTEF dans ce domaine parce que seen texte yi moom mooy def obligation bu fekkee ne nekk nga président de la République démission tu démissionnes. te démission yi dina continuer parce que dañu bëgg a voter loi Assemblée nationale. de de de toutes tes waaw de toutes tes charges loolu. Euh, pendant plusieurs années nit ñi dans le dialogue politique ak yooyu xeex nañu ko xeex ko proposer pour que véritablement cumul boobu bañ am mm-hmm. n'est-ce pas mësuñu ko man euh, ñi fi les les les tenants du pouvoir que ce soit du temps de Ablaye Wade que euh, de, de du temps de Macky Sall kenn ci ñoom mësu ko woon a nangu n'est-ce pas parce que dañu doon wax ne ça c'est la branche sur laquelle on est assis absolument pas aujourd'hui que le président élu respecte na les textes de son parti ba démissionner de ses fonctions li muy wane mooy bu ëllëgee dans le cadre d'une concertation politique bu ñu nee qu'il plus de cumul xam nga président day wax ne man fekk ngeen ma ci. donc son camp. ñoom ñoom son son xam nga son camp ne waa seen i programme déjà parce que dañ koo bind dañ koo bind. donc ça veut dire que. donc ne euh, sera de Ziguinchor. voilà donc des choses les des cumuls yooyu moom vraiment euh, si ce qu'il faut saluer c'est le fait que euh, immédiatement après dès son élection. mu mettre en application les dispositions de de de de réglementaires de son de son parti politique. Mhm. il faut le saluer. maintenant euh, effectivement suba incha allah la ñu war a fêter. Euh, levée des couleurs là entre. Euh, voilà mais ce sera toujours ce sera toujours une fête parce que quand même. comme on a un, président nouvellement élu quel que soit le format ce sera toujours une fête pour les Sénégalais alors li ñuy def d'abord mooy souhaiter à tout le monde mm, une bonne fête d'indépendance te euh, ñaan yàlla itam ginnaaw moom mooy doon première sortie officielle pour mu di euh, am lu mu jiite au non du peuple sénégalais souhaiter ko bonne chance et réussite te itam à tout moment que mu mën rek di euh, am en mémoire li nga xam ne moom la sénégalais di xaar mhm. parce loolu rekk am solo moo tax par exemple su fekkee ne war na def un discours ngoon incha allah ñu ngi koy xaar ci mu wax nit ñi ne benn dana def un état des lieux wax sénégalais yi fan la fekk réew mi parce que loolu itam lu am solo non non non dem na jël engagement ne danaa ko def ok ok waa faire faire faire l'état des lieux wax aussi que ne reddition des comptes. mais est-ce que kon du doon euh, redondant ci discours démbam bi pratiquement. non c'est-à-dire discours démbam bi moom c'était un discours d'investiture je pense que tey. bu fekkee ne war na wax hein il a pris des engagements. bon des, les engagements. bon vis à de la nation. du peuple mais est-ce que qu'est-ce qu'il a dit de de de de la reddition des comptes. waaw te yooyu mën na ci waxtaan ah. non non non c'est-à-dire xam nga sénégalais yi ñoom dañu xam nga discours euh, yi nga xam ne nit ñi dañu amoon habitude un format boo xam ne c'est stéréotypé da ngay da ngay ñëw rek wax wax joo xam ne pratiquement da ngay wax 15 minutes ñu ne waxul dara. Mhm. loolu jàpp naa ne rupture boobu moom ñoom danañ ko. discours yi xanaa gàttaay discours bi. lu mu gàtt gàtt. am solo lu mu gàtt gàtt. na am solo sénégalais yi sentir ne kii moom xam na nun lan la ñuy xaar. parce que loolu mooy maintenir l'espoir et c'est ça qu'il faut parce que xam nga changement yi peut-être du mën a gaawe noonu mm-hmm. mais bu fekkee ne décline nga euh, euh, euh, une feuille de route très claire mm-hmm. aux yeux de l'opinion dana mën a permettre opinion bi xam ne kii lii ak lii ak lii vraiment c'était des ententes euh, du peuple sénégalais euh, de fas na yéene jublu ci loolu bu ko defee xam ne tey sénégalais yi dañoo sonn de toutes parts xiif baa ngi fi pauvreté baa ngi fi sous-emploi désespoir de la jeunesse loolu yépp il faut que ci posture bi nga xam ne moom lay am ak ni nga xamee ne noonu lay waxee ak sénégalais yi. Hmm, démb wax na ko de li tax ñu fal ko xam na ko. baax na waaw xam na ko boo xam na ko la wax. Hmm, hmm. mais est-ce que citoyen bi ko dégg mu ne xam naa li tax ngeen fal ma. maanaam est que xam na li nekk ci boppam moom. bu ko waxul non xam naa li tax ngeen fal ma kooku euh, Macky Sall n'avait pas dit j'ai j'ai compris votre message loolu Macky Sall waxu ko woon non Macky wax na. après mars 2021 waxoon na les jeunes là dégg naa li ngeen wax li ngeen wax xam naa ko danaa ci taxaw mais waxul na lii ak lii ak lii laay def danaa ci taxaw la wax taxawoon na ci selon sa compréhension. d'accord. doyen Albert euh, kon discours bi tey la fan nga yaakaar ni war na fi génn xam nga dig nañ ñu fi sax dakaar sera comme Paris en l'an 2000 sans nous dire comment hmm. serait Paris en l'an 2000 xam nga yooyu yëpp ay naxaate la woon hmm? dakaar sera comme Paris en l'an 2000 gars yi di rêver de l'an 2000 l'an 2000 te waxoo ñu l'an 2000 après Paris moom nan la war a mel donc euh, lan ngay xaar ci discours bi tey premier discours à la nation bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye non peut-être. Euh, bu leen soppi république na en séeréer ay naaf yoo mexe ma yooyu. non kooku kooku kooku fokk ah, laal ah. ci tuuti nag. ah ah, ah si il faut que il faut que ñu laal ci tuuti ah. ay ndik rek. <laughs> waaw. <laughs> doyen mais mais euh, mais euh, c'est une excellente chose. parce que tu sais l'unité nationale la cohésion tout ça je pense que moom il est bien placé. pour y jouer un rôle extrêmement important en tout cas nomination daal. waaw benn la. donc secrétaire régional. yooyu yëpp à la président hmm. jël benn Joola. Hmm. daf ko <laughs> ah. <laughs> premier ministre. jël beneen xal pulaar. Hmm. daf ko directeur de cabinet. waaw ah. doyen donc. Euh, affaire de cousin cousin cousinage à plaisanterie lañ fi <laughs> mais cousin à plaisanterie indi jàmm Sénégal nag. non non Diomaye euh, je ah, pense pas je pense pas que mu am euh, des problèmes. par à l'unité l'unité nationale. je ne ouais. crois C'est le passif déjà. Hein. Le passif, c'est un exemple de melting port Ouais, il y a tout, euh, il Mais c'est vrai que c'est bien qu'il continue euh, les signaux. Par exemple, le fait que Moubani n'est que chef de parti. Ça, il faut aller plus loin. saa yu soo gisee présidentialisme c'est pas. il n'a jamais été chef de parti il a été juste responsable. il a été général c'est lui quand même l'organisateur du PASTEF. donc s'il euh, quitte c'est c'est excellent maintenant il faut aller plus loin cest le parti c'est pas euh, comme il l'a dit le parti sa fonction c'est pas seulement la prise du pouvoir. Mhm. le parti doit participer à l'organisation de la société. à la formation, à la formation euh, l'éveil des consciences, euh, la citoyenneté. La citoyenneté, elle, doit être construite à l'intérieur des partis politiques. C'est ça le malheur qu'on a. Et je crois que bon message boobu lu baax mais il faut aller. le passif la l'esprit citoyen le volontariat la participation citoyenne on le sent déjà mais il faut aller plus loin c'est-à-dire que Ousmane Sonko c'est le chef emblématique il sera premier ministre peut-être qu'il y aura beaucoup de ministres euh, du PASTEF. Mais il ne faut pas que les militants de PASTEF mettent pression sur le président et son premier ministre pour dire que nous aussi, il faut nous récompenser. Ça, ah, il faut séparer l'administration du parti. Je pense qu'il faut vraiment que Diomaye aille radicalement dans cette direction-là. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout des cinq ans, qu'il arrive au moins à séparer l'administration, l'État de l'appareil politique du passé. Mhm. S'il le réussit, il va même prendre des gens qui ne sont pas de sa coalition et les nommer, hein, le... Non, Ce que je veux dire, c'est que justement, c'est que c'est à lui d'aider le passif à se reconstruire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mette en place un système de formation, mhm. un système euh, d'éducation, un système d'insertion. C'est un modèle. Le, pour moi, le passif, c'est un modèle qu'il faut protéger peut-être que les autres partis là bon mën na leen euh, influencer ça on attend beaucoup de de de Diomaye qu'il donne un message clair l'État ne sera pas caporalisé par le passé ou par la coalition. Mmh. Maintenant, il y a aussi les, on attend quand même un message clair par, par rapport aux conditions de vie des Sénégalais. les priorités, ah, le, les dossiers C'est insupportable ce que les Sénégalais sont en train de vivre. Il faut qu'ils donnent un message clair, peut-être dans deux mois, trois mois, quatre mois, six mois au maximum, qu'ils puissent rassurer les Sénégalais que la vie va être moins dure. Mm-hmm. Euh, socialement, économiquement, culturellement, lol quand même, euh, les gens attendent beaucoup, beaucoup un geste pour que dans six mois. lueur d'espoir en quelque sorte. voilà sur le niveau mais euh, oui c'est pas seulement Amadou Ba par exemple il a pris des mesures pendant un an mais il y a pas eu d'impact ñoom tamit c'est pas un problème de prendre des mesures c'est un problème que dans six mois on va améliorer les conditions le de vie structurel quoi le structurel, on, je crois qu'on attend beaucoup de de c'est vrai aussi euh, le gouvernement moi je serai très attentif à deux ouais. choses mhm. sur la taille mhm. ah est-ce que on va pas nous fourguer euh, un bourrage de de ministres dans dans le gouvernement mhm. la taille c'est important mu joxe un message clair qu'on n'est pas là pour euh, bouffer le l'argent public ba deuxième attente bi c'est c'est dans l'organisation c'est-à-dire pour moi faut oser il faut oser ah avoir un ah gouvernement qui travaille nga bañ nekk fii dans un gouvernement pléthorique de de politiciens qui qui vont rien faire. dans la complaisance. Euh, euh, lu doyen wax yow loo ci xaar ci gouvernement bi parce que on quinze heures la ñu wax on peut avoir la liste à. discours discours président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. bu tey à 20 heures waaw xam nga discours. trois avril moom presque président yi sax dañu ci daan nax bu nu commencé def benn chapelet projection yi gars yi dañ leen wax ci plateau yi noonu da ngeen ñuy c'est c'est la fête de l'armée donc li war président mooy mu ñëw surtout ci situation bi ñu toll euh, kañ armée bi benn moom lay ak les forces de défense et de sécurité ñoom soxla nañu ko waaw moom lay démarrer kañ armée bi uh-huh. euh, discours bi dafay tourner autour de la sécurité d'abord foog ñoo xam ne Sénégal fa mu nekkoon malgré tout ce qui se passe dans la sous-région. mooy mhm. Sénégal nekkoon ba tey ma nga fa en terme de sécurité. Mhm. ñu war ko renforcer war ko loolu mooy indi nga dooleel suñu force de défense et de sécurité. Mhm. beneen bi mooy créer conditions yi aussi pour que force de défense et de sécurité yi juboo ak askan wi. parce si diggante bi xawoon naa metti ci at yi donc vraiment occasion la tey ci discours bi waaw foog ci occasion la ci discours bi moo tax paix sécurité laay wax ñu am jàmm mais ñu ñu taxawee taxaw debout un Sénégal debout dañuy mhm. soxla à travers nos force de défense et de de sécurité beneen axe discours bi daf koy jëmale ci ndaw ñi mais pas sous forme de de projection kaay euh, wala de projet mhm. mais bir na ma ne dana invité ndaw ñi à un mouvement d'émancipation nationale pour que lépp lu nu mën a baral ci soppi ñu baral ko pour jublu ci liggéeyu ndaw ñi ak soulager les ménages xam nga loolu moom pan bu am solo la discours yi président Diomaye Faye def yëpp ñëwaat na ci l'emploi des jeunes euh, la réduction de la du coût de la vie loolu nag ay ndaw ñoo koy def fan la koy jaare loolu mooy énigme bi xam nga ñu nit danoo tàbbi woon ci benn carcan wu dénonciation dénonciation benn politique indeetul solution moo tax tey lan mooy solution yi quelque léegi nag léegi foo lan jëm mhm. lan mooy solution pour fair vite démarrer la machine Sénégal mooy énigme bi ñuy xaar. mu mën ko déci parce que 11 mois en prison tu as tout le temps nécessaire mais mais benn solution la am mais benn solution kese la am amul ñaar amul ñett amul ñeent benn solution kese la am mooy la relance de l' agriculture une révolution agricole Sénégal mënuloo dëkk bi té téeméer boo jël juróom ña benn fukki ak juróom mbay la ñuy dundee. que pour cent de la population active qui s'adonne à l'agriculture et ces 15 pour cent de la population active ne travaille que 3 mois sur nga ne mooy sa pilier économie il faut tendre vers une révolution euh, no euh, agricole lii nga gis ci télé bi xale yi di ko def c'est du sous-emploi xale yi voteel jomaay pour la plupart ñeenti métier la ñuy def cag-cag cag-cag mooy Jakarta jaay café Touba coton tige mouchoir à jeter yooyu wala accessoire téléphone xam nga mënoo sukkandiku ci categorie métier yi pour émerger un pays yaakaar say ndaw xale yi ñooñu noonu leen a war a créer les conditions ñu delluwaat ci tool yi. d'accord kon mbay mi. pilier bi mbay mi mbay mi kese la mais non du mbay mi kese mbay ak industrialisation xam nga mbay mi boo ko mbay transformé mbay mi soo soo deful une révolution agricole munoo dem ci une révolution industrielle. d'accord xam nga ñun mbay mi mi ngi ñëw xam nga yow waaye industrie c'est toute une chaîne. c'est toute une procédure mais ñun ñi ngi jëm ci. Euh, euh, exploitation nawet bi. waaye ñetti weer a ci des. chinois bi mi ngi taxaw ne lu ngeen bay ci gerte man mën naa koo jënd. te ñun dañoo soxla <laughs> gerte pour suñu huileries yi. te ñun dañoo soxla Pape Fall tàggoo tàggoo waale waaw waaw. Mhm. Eh, waaw man damay li ma ubbee woon rek laay laay daanale mhm. mooy sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin mhm. eh, yaa xam ne ñun eh, askanu yàlla sagal la mhm. askanu yàlla sutural la muy ñun ñun Sénégal fii ñu jaar yëpp de saisir waaw léegi nag tax ma ne damay lancer un appel dañuy wax lu néew tey jëf lu bari d'accord Déthié président Déthié Déthié waaw yow sa kàddu gu mujj waaw xanaa wax rek ne Euh, ñëpp ñu ngi déglu président Bassirou Diomaye fay Cheikh ante de doon wax ne la sécurité précède le développement loolu dafay ëmb lépp sécurité alimentaire sécurité au plan de la défense de l'intégrité territoriale, sécurité à l'intérieur des citoyens, sécurité au plan de l'éducation, souveraineté au plan. mais bizarrement tey kenn waxu fi justice man dégguma kenn waxu justice xam nga ñoo ñoo ñëw ci sécurité boobu yëpp mu ngi ci. parce que la sécurité yow bu fekkee ne au niveau de la justice amoo ci moom confiance li ngay gis doylu la mënoo wax ne tu es en sécurité. d'accord et dans ce domaine là il est clair que euh, beaucoup de réformes sont sont l'image que renvoie la justice mën a mën a changer ba nit ñi sénégalais yi gën a am confiance ci ci seen seen justice en une phrase lan nga gën a retenir ah. ci nguuru président Macky Sall bon disons quelque chose de positif quand de de de de positif euh, benn ponk daal boo xam te ni jàpp nga ni loo xam ne peut-être kii na peut-être mën nañuy wax les efforts qu'il a tenté qu'il a qu'il a fait pour les infrastructures xam nga au niveau des infrastructures def na def na ay réalisation ok yow loolu nga gën a kii mais euh, li ko yàq rek mooy xam nga réalisation am na solo waaye su fekkee ne nit ki li muy ressentir ak image bi ngay reflété mhm. baaxul nit ñi du ñuy sax réalisation loo loo loo jàpp ci président dem na de c'est fini ñaar yoo xam mhm. Mhm. mooy waaw ñaar yu positif wooyam mooy Sénégal moom ci man la ñaari mandat d' accord ak lu nu mënti wax. dootu fi amati c' est loolu moom dañ ko koy. clause ak lan. jeex na beneen bi mooy musul fanaan pale. coow li bari bari. musul fanaan pale yow noo def boo xam loolu papa. non loolu moo dafa ni pale bii duma fi dëkk sama njaboot du fi dëkk parce que loolu mooy euh, def tentation boo fi bëggee génn mu tëla da daan liggéey waat ñibbi mer muus. ah oui. loolu la musa def. d' accord. doyen Mamadou Sy Albert wax ma yow loo loo lu nga capté ci ci président Macky benn parce que suba di nga ma waxaat beneen wala gannaaw suba. Hmm. léegi ban. Hmm. disons moi je retiens quand même qu'il a fait deux deux mandats c'est c'est pas sûr que le les prochains présidents ñu am deux mandats bon ça a été très dur. Euh, euh, qu'il a quand même eu une carapace. parce que lu mu gérer 2021 maintenant là c'est il faut dur dur dur dur de carapace euh, il a il a subi énormément de pression à part vraiment ce que je regrette c'est le tweet qu'il a euh, balancé en disant que bon moi je parle de euh, quelle que soit la situation ça il, il a flashé quoi c'est c'est c'est pas Macky Sall et je crois que ça c'est regrettable. mais doyen lu la neex ci moom lan la laaj. <laughs> pourtant laaj ma ne lu la neex de looy retenir laa la wax. Ah. ci lu mais bu dee lu positif moo gën. waaw ah, ci lu baax ah doyen looy retenir ci lu baax. xaaral ma laajaat ko ko doyen looy retenir ci lu baax président parce que bu dee deux mandats yi askan wee ko fal deux mandats. ba léegi wax a léegi looy retenir ci ci. non moi je ne vais pas rentrer dans ça franchement. amul benn image boo garder ci moom. boo xamante ni non c'est pas que c'est positif ou c'est c'est négatif je je veux pas dire que ça c'est bien ça c'est mauvais vraiment c'est pas mon job quoi. non doyen tu es un citoyen tamit xam nga job job job tu es un citoyen un citoyen. am donc ba léegi li ngay wax yëpp en tant que citoyen aspect fibre mais doyen fibre fibre le fait que moom mu juum mu juum dëgër ci juum bi mu lor ay sénégalais yu bari dee ci. mu dem ba ci fin mu d'accord ni juum na créer les conditions pour pour. mais il n'a jamais demandé pardon. waaw non dama ne mais créer les conditions xam nga tamit. ah créer les conditions pour réparer ses erreurs. c'est à l'endroit de Ousmane Sonko et de ses loolu laa wax dama ne loolu. valeur est-ce qu'il a réparé aussi. créé les conditions pour réparer ses erreurs mooy génne nit ñi ci kaso bi rétablir ko eh, candidat yi dans leur droit cest dire que loolu man man. man bu ma gisee vague xale yi di génn ci kaso bi guddi gi sama rangoon sax tuur na. effort waaw non non waaw effort waaw waaw waaw boobu seen nga effort boobu effort boobu ah moom soulagé na ko de soulagé na Macky Sall mais loolu ci sunu chef d'état yi Afrique lu jafe la parce que dañuy ŋànk ba dee ci duñu bàyyi moom au moins di d'ailleurs moo rey candidat moo ñu rey ñun ñëpp du ba muy dem bay jeexal la da nekk man li ma doon def du yoon xaaral ma jéem koo réparé bala maa dem eh, juum du juum day am mais rëcc ko juum du wees loolu pour euh, ci moral luñ ci mën a jànge moom looloo ko may démb bu mu génnee palais ñu tàcc ko mu dem Mermoz ñu tàcc ko jox ko avion présidentiel mu dem. ñu ngi doon wax ci Diomaye aussi Diomaye n'oublions pas qu'il n'a jamais eu de mandat électif. war a fal mosul nekk maire mosul nekk député mosul nekk est-ce que xam nga loolu aussi dina mën na nekk avantage ah pour Diomaye. waaw je pense que. exception yi mu ngi commencé bëri Sénégal lépp mu ngi mu ngi aju rek. ci nit Diomaye le plus jeune président élu. waaw ah. Diomaye le ceci exception yi mu ngi commencé. xam nga xam nga moom il a. reçu si exceptionnel que ça. Mhm. c'est il a dirigé le passé dix ans. oui mais xam nga en tant le que. le Pastef aujourd'hui c'est les principales partis politiques. Diomaye a des qualités organisationnelles. non Diomaye n'a pas dirigé le Pastef dix ans il n'a pas toujours été secrétaire général du Pastef yoroon na responsable des cadres yoroon na yeneen instance mais. xam nga euh, je pense que le le le le problème c'est simplement bon de mon point de vue dépendra de sa capacité d'écoute. Super. parce que a une certaine expérience. Mhm. de management, etc. Donc s'il a une bonne capacité d'écoute, je crois qu'il saura faire régulièrement la synthèse euh, des différents avis et conseils yi nga xam ne dina ko jot. fekk na am na déjà une vision très claire de ce qui doit être fait bu ko boolee ak. peut-être am na benn fusible aussi n'oublions pas am na fusible ah parce que Sonko à côté de Diomaye premier ministre lu bëri Sonko moo koy moo koy moo koy moom lañ ko nar a jiiñ moom lañ ko nar xëpp donc euh, mu mel ne temps bi jeex na. Mm-hmm. di leen gërëm di leen sant waaw di gërëm Pape Fall président Déthié ah, fonk sa kaddu di gërëm Mamadou Sy Albert di gërëm mbokk téléspectateurs yi régie ñu ngi jëlaat seen antenne parce que 13 heures ngeen am seen journal en français di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup